gan gi Hélène ñu ngi lay nuyu maa ngi lay fay Fatou. am mbégte dalal ci matinalu Rewmi FM tey ni ma ko waxee député nga woon ci assemblée nationale douzième législature euh, tey ngay coordonnatrice mouvement pour un Sénégal d'éthique et de travail ñu door nag waxtaan wi ak mbiram passeport diplomatique yëngal assemblée nationale wax nga ko sànq ci seen législature ci ngeen euh, sàkkoo woon soxna yi député yi euh, maanaam yeneen soxna yi mën a am passeport diplomatique ndax fekk ngeen yenn ci soxna yi mën koo am ndax mën ngaa dellusiwaat ci mbir la ñu joxoñ baraamu tuma ngir layal eh, lii xew tey di trafic passeport yi ñu tudd ay député yu nekk ci législature bi. jërëjëf bi ma sant yàlla ba pare gërëm leen eh, ci li ngeen ma dalal ci seen matinal bi eh, toute la rédaction de Rewmi FM mhm. man may wax jooju jolli ci jamono ji ñu toll nekk na wax joo xam ne mën naa ne war na tiital waa Sénégal yépp mhm. en tout nekk na wax joo xam ne buñ ko dëggalee parce que nag yoon la ñuy xaar mu taxaw seet saytu ko leeral ko ba Sénégal yëpp ak àddina bi yëpp mën na xam lu ci ne ndax loolu su amutee gàkkal nañ deru Sénégal ci àddina bi wérngel képp ndax passeport diplomatique dafa nekk loo xam ne mooy mandargal ak respect bi ñuy jox réew ca ay naataango réewam yeneen ndax passeport pour dem bitim réew la mhm. réew yu bëree léegi ñu ñu koy lankal balaa lii di xew kon lii lu garaaw la jege ko nag ca pencu ndaw réew ma faatu nekk na lu am lu lu doy waar lu yéeme lu garaaw mhm. may fàttali na rek ñun ba ñu demee assemblée 2012 fekk nañ déjà ci charte bi nga xam ne lu ñuy woowee loi organique mooy réglement intérieur assemblée nga xam ne boo jëlee loi organique yi mhm. boo jëlee charte réew mi charte ndeyu réew mi mooy constitution bi loi organique yee ci topp loi ordinaire yi doog cee topp pour wax la ni charte boobu amee doole mhm. fekk nañ ca ne député bi buñ ko falee ci article cent six ba am na droit passeport diplomatique au même titre que membre membres du gouvernement mhm. ñu fekkaat fa xam naa ci waxtaan yu député yi amoon ak nguur ga mhm. ne may nañu député bu ne boo de jigéen sa borom kër ñu jox ko passeport diplomatique boo de góor ñu jox la benn passeport diplomatique pour sa soxna mhm. bi ñu gisee ne nag loolu ñu tëral ah, nekk na loo xam ne soo ko jëlee ci wàllu yoon code de la famille bi nga xam ne assemblée moo ko voté te reconnaître polygamie boo ko xoolee ci wàllu yoon jalgati nga ndax su député ba nekkee am ñaari jabar wala ñett nga ne ko tànnal kenn ci ñoom mhm. bot di nga ñeneen ña ci wàllu yoon mhm. soo ko xoolee ci wàllu diine it xel mënu ko nangu man man euh, je suis de religion euh, euh, euh donc chrétienne mais man dema xam ne tey ji foog naa ne diine l'islam dafa tënk ñi nga xam ne dañoo bëgg wut ñaar ñetti soxna wala ñeent ne leen da ngeen leen war a yemale. Mhm. kon boo nekkee député ñu indi la penc ma. fekk nga am ñaari soxna wala ñett wala ñeent ñu ñëw ne la tànn ci kenn moom lañ koy jox ñu ñu xool ñun man ci ñi ko doon xeex laa bokkoon wala ñu ko doon jiite sax xeex boobu ne leen da ngeen di boddi ay jigéen ba pare da di jël ay ay ay ay ay ay nit ñoo xam ne père de famille yoo xam ne dañoo bokk ci benn diine ngeen bëgg leen a wax ñu jalgati li nga xam ne moom la leen seen diine sas mhm. du ngeen mënee ngeen jox ji jigéen eh, jabar yépp bu ngeen ko munut ngeen bañ ko ñu bañ a jox kenn ci la ñu wax parce que loolu nekkul ci loi loi bi defa leer leneen li si décret lay nekk mooy député yi mën nañ ko ñaan ministre des affaires étrangères mhm. mu dem waxtaanee ko njiitu réew ma ndax décret njiitu réew moo koy xaatim ba ñu ne léegi député bu polygame maanaam ku ci polygame ndax du député yépp ñoo nekk ñu am ñaar wala ñett wala ñeenti soxna. Mm-hmm. député bu ci am plusieurs soxna léegi say soxna parce que ñu ngi tudd sax doom yi mais doom yi mosuñ cee bokk loola doom bokk ca. Mm-hmm. de donc député xanaa ñu def ko te ñun yëguñu ko ñu defal ko xëj na benn pàccu député yi ndax fa ñu far te ñeneen ñi yëguñu ko waaye doom mosu caa bokk. donc ca la ñu may député polygame yi nga xam ne dañu amoon problème pour tànn kenn ci seen soxna ya ñu ne leen mën nañ may seen soxna yëpp waa loolu buñ ko defee faatu mhm. loolu mais warut a warut pour man nekkul problème problème bi mooy yan xeetu député la ñu yóbbu yan xeetu nit la ñuy yóbbu ca assemblée nationale ba ba ñuy jël di jalgati règle yi nga xam ne moom la loi bi teg parce que soo xoolee article cent six boobu mm. nee na nañu daan député boo xam ne jël na euh, euh, maanaam passeport diplomatique bi di ko jafandikoo nee na naka naka sudul noonu article boobu wax na ko. kon assemblée waroon na daan député yi balaa même ñu yegg ci yoon. assemblée ba moom ca boppam. comme def na ko ca chartam mais hmm. war na am ay mécanisme te xam naa ne am na ko yoo xam ne yow tuumal nañ la. Hmm. waaw war nañ laa mën a woo commencé wax ci mbir mi. président assemblée déglu na ko déglu na leen kon député yooyu. ah man de de dégg ci ay député yu wax démb. Hmm. te ñu nekk député yoo xam ne mën nañ leen wax ne nit ñu nit ñu ñu ñu mën a jox dëgg la. Hmm. nit ñu ñu wóolu la nee na déggagul bureau bi woote sax pour wax ci mbir moom. déggagul bureau bi woote pour wax ne nañu dindi malaanu kiirlaay. Hmm. xam nga Sénégal tamit bu ñu bëggee nekk dëkk boo xam ne day taxaw. bu ñu bëggee suñu suñu démocratie bi ak nation sénégalaise bi euh, continuer taxaw. nañu nañu nañu nañu teg nañu am justice boo xam ne day doxal dëgg ay mbiru passeport jolli na ci benn côté ñooñu ñu jàpp leen jaarale leen fa fa fa yoon jaar en attendant ñuy xam ndax dëgg la am du dëgg. Hmm. bu jollee ca penc ma nañu taxaw leeral ko parce que ca penc ma la gën a garaawee li xew dafa nekk lu jéggi dayoo te li ko tax a gën a jéggi dayoo mooy tey kañ jiite penc ma. le 11 juin mille 20 euh, euh, kii 23 euh, juin 2011 23 juin 2011 foog naa ka yoroon xeer wa gën a rëy taxaw ci kanam ba ca xeex ba ne dañuy toj penc ma dañ koy tas ndax taxawaayam dafa jéggi dayo kooku la yàlla nattoo tey ci ñaari législature yëpp muy président Moustapha Niass muy yor jiite penc ma penc lu ne di xew ñu fay wax ay faux ba ñëw ci trafic de passeport diplomatique mais tey su benn député naree ñëw ci biir at ma ne takk na ca ñetti jabar di leen utal passeport diplomatique mais balaa muy dem ministère des affaires étrangères mais ca penc ma lañ war a xoolee ne lii am na lu ciy lu ciy luus mm-hmm. ñu di ko def di ko def depuis ay ati yàlla kenn waxu dara mais bay ci ay ñoo xam ne dañ leen fal pour ñu taxawu seen askan pour ñu nekk ñoom si ñuy ñuy xar kanamu askan week bu noppi askan week loxo askan week bëtu askan wi seexal askan wi ñooñu ñooy dem di racket askan wi di def mu jëral leen ñuy def naka sudul noonu pour di roppet askan wi ay millions. Hmm. ci ci ci ci loo xam ne mais dafa extrêmement grave ndax Sénégal lay porter préjudice à l'international addina wërngal képp loolu nag nekk na lu jéggi dayoo te yaakaar naa ne war na nekk loo xam ne sénégalais yépp war nañu taxaw temm ba tey ñu leeral ko ba tey su fekkee ne am na bootul amati parce que ñun de bañ koy xeex di ko def pour député yi nga xam ne dañoo am dañoo nekk dans des familles polygames hmm. muy muy muy muy muy muy muy muy góor ñi mais defewuñ ko woon pour ubbi leen bunt pour ñu indi seen njuuj njaag loolu tamit tax na ñu war a xool ñan nit la ñuy yóbbu ci assemblée nationale ba dañ waxante dëgg yoo hmm. ñëw rek def assemblée un repère de faussaires kenn xamul lii mooy lan. Mhm. bu yàggee faatu. ci lii ma dégg ñuy wax. groupe mhm. parlementaire de faussaires am na ci assemblée nationale. <laughs> xaw ma ñaata lañ. <laughs> doy na waar doy na waar hmm. alors honorable ñu wax ci élection yi nag léegi euh, foofa ca cees am ngeen fa mburook soow di alliance bu dëgër opposition bi euh, bu booloowul ndax yaakaar nga ni am na chance su gagné euh, benn Bokk Yaakaar wala sax jàkkaarloog ñoom ci li tax ñuy wax jàkkaarloo même bu rombee Thiès ci Sénégal ndax gis nañ fi yi ak yeneen coalition yu yëglu te jort nañ ne yeneen dina juddu tasaaro googu lu leen mën a jural waaw wax dëgg yàlla euh, su ma waxee dëgg <coughs> mooy mën naa ne lu ma bett la hmm. tasaaroo bi ñu nekk di tasaaroo nii bien que ñu bëri dañuy théoriser ne am ay coalition yu bëree mënutoon a ñàkk ak war na mën a nekk ak yu kenn xamu man dem hmm. dama dund 2009 2009 ñu dem élection locale dañoo dem tëgg Benno Siggil Sénégal mu nekk une large coalition boo xam ne même personnalité de la société civile yi dañ caa dugg woon ñu ànd campagne jël grande ville du Sénégal yépp mm. waaw te maa ngi koy rappelé nee naa leen ku mel ni Khalifa Sall sala faloo Dakar ah ak ñeneen ak ñeneen si dëkk yu mag léegi tey loolu ñu defoon te mu jig ñu lu tax tey waru tee mën maruñ ko mën a def man loolu moom nekk na loo xam ne faatu jaaxal na ma mm. bu ma jëlee ñun fii Thiès dañoo anticiper ñun ndax fii nag cees moom dañ fee am lu ñuy woowee mburok sow mhm. ah, ak ku ñu tuddee niti Thiès Sénégal yëpp jam ñu ñun wàcce mhm. Mhm. léegi ñu ni ñun dañuy nañu dankaloo commencé liggéey ñetti weer a ngi nii di dajale opposition bi yëpp pour mën a pare ne suñu sañoon ñu won wax niveau national bi ne lii ñuy tabax Thiès muy coalition boo xam ne opposition bi yëpp a ngi ci moo jik moo ñu jikk te cëppaandaw ga ah dem nañ ba gis ne am na benn pàcc boo xam ne dankaloo nañ déjà ci côté Yewwi mhm. maa ngi leen ci félicité di leen euh, di leen ndokkeel parce que man tudd nañ ma fa mais signé wu ma fa lu tax signé woo di tax signé wu ma mooy dañu nekk kuréel boobu ñu teg Thiès te nga xam ne ñëpp a nga ca biir kuréel boobu dafa ëmb ay partie yi nga xam ne ñëpp ñi ñi ñi amoon nañu nekk yeewi am na ñoo xam ne nekkuñ yeewi hmm. waaw muy parti lu mat seize kuréel seize parti yu gën a bëri yëpp ñu nga ca léegi ñooña ma ñuy liggéey ensemble ñu jox ma ca liggéey ba cër wu am solo léegi man su ma demee signé fenn mooy ñooña nee naa leen day mel ni won naa leen gannaaw hmm. xam nga di may wax waaw moo tax man Euh, boole ci charte aussi euh, Yewwi bi bu fekkee day tënk ku fa signé rek euh, amato droit hmm. dem di wax di di di dug di wax di di di lëkkaloo ak ñeneen yeneen beneen liste hmm. amato droit soutenir beneen liste yi gox bu mënti doon te ñun Thiès ñu soxla ñun suñu sañoon ci la ñuy dox ba fii ñu am benn liste bu am doole ndax su hmm. fekkee ne Euh, Benno Bokk Yaakaar ak réew mi nga xam ne wane nañ seen doole fii mhm. en tout cas réew mi daa mos di wane dooleem fii mhm. vingt ans ngi nii nii ñoom ñoo yor collectivité locale yi fii mhm. Thiès euh, Benno Bokk Yaakaar yorati nguur gi su fekkee ñooñu nga xam ne am nañ doole ci fànn yooyu ñoom ñoo am besoin dem ne dañuy booloo mais waxatuma ak ñun waxatuma ak ñun donc man xàddiwuma maa ngi koy lancer appel pour ñu wax leen ne Thiès man dama gëm ne dañ ko war a def un cas à part boo xam ne au-delà de bii coalition la bokk fee laa far te dégg naa benn kàngam bu mag muy Mamadou Lamine Diallo mu wax ne da dàquñu bi ko ko biñ ko ko laajee démb si benn seen naataango benn laaj ko ko mhm. dàquñu ci yenn gox yi ñu mën a transcender coalition yi pour dem lëkkaloo bu yaatu ci gox yi nga xam ne def ko laaj. Hmm. man yaakaar naa ne goxu Thiès loolu laa ci la bokk hmm. ci la bokk te loolu ci lay dox man. d'accord foofu foofu ci Thiès yow euh, am nga foo bëgg a doon candidate. waaw man xam nga euh, Thiès wax naa ko ci lu bëri li tax boobu ba léegi déclaré wu ma candidature. Hmm. mooy dama bëgg respecter ñi may àndal. dama bëgg ñi may àndal ñuy liggéey la liggéey ñu liggéey ko ba mu ñoŋ ñu waxtaan ci biir néeg ba d'accord. ne ñii ñooy candidat ci lii wala ca lële. Mhm. ñu fësal ko foog naa ne kaay d'accord nañ ne yow mii lañ bëgg teg fii. Mhm. moo gën nga fëgg sa dënn ne man laa bëgg ngeen teg ma fii. ci man loolu mooy sama démarche. Mhm. ñu ngi ciy waxtaan ci biir néeg. bés bu jotee dinañ ko fësal ndax liy defar pour man moo jik naa nag pour li nga xam ne moom la waa Thiès namm ci man. ma taxawee ko mëte ko defendre ko ci biir coalition bi. Mhm. ñu bëri may woo di ma laaj doy xaar pour wax ndax candidat nga waaye doo ànd ak ay nit ngay ne da ngeen di duggi pour togg ceebu ganaar. Mhm. yow nga taxaw ne bu buñ toggee ceeb bi ba pare di ganaar gi maa koy àkki moom mais kan mooy des ca ca ca ànd ba. kenn kenn du fa des. ñu léegi nag loolu. Mhm. moo tax dañu war di respectante dañu war a ànd. lu jot rek ak yàlla suñu borom mu neex ko dana am. Mhm. sama mbokk politiciens nag ku nekk ngi fëgg dënam candidat la nañu xaar nit ñi ne leen candidat ngeen. waaw wala ñu xaar nit ñi ne leen kaay leen yéen lañ bëgg. ci loolu lañ yawa yawa moo gën a wóor mën a mën a. waaw ñun li ñu bëgg tey Thiès daal. Mhm. maa ngi koy lancé waat appel. Mhm. mooy ñu xam ne tey jii. Macky Sall nee na am na quatre vingt cinq pour cent de l' bi ko Idrissa Seck fekk say. kon nag tey ñun Thiès la ñu war a wax ne. loolu am mënut a nekk quatre-vingt-cinq pour cent de l'électorat mënut hmm. a nekk ndax buñ taxawee ci Thiès ba mën a taxaw ba renverser tendance bi fii Thiès dinañu wane ne quatre-vingt-cinq pour cent de l'électorat boobu amut te foog naa ne dina tax ba yenn yi nga xam ne ñu ngi ko cay waaja laxas du mos a am. luñ ciy waaj a laxas ah xam ngeen ko ku taxaw ne maa am quatre-vingt-cinq pour cent de l'électorat kay maanaam quinze pour cent yi des. c'est insignifiant donc mm-hmm. moom war na mën a taxaw quatre-vingt-cinq pour cent yooyu luñ bëgg mu doxe ko mu doxe ko buñ bëggee sax ne ko tegal troisième mandat mu doxe ko parce que am na écrasante majorité donc mm-hmm. dañoo war a nag mesurer loolu balaa ñuy dugal Sénégal ci danger ci ay xeex contre lii la mm-hmm. ñu taxawee ko mate ko ci élection yii ba du ñu fi nekk di da di di dañuy mettre suñu doom yi en danger. Mm. wala dañuy nekk réew mi en danger ci violence comme en 2012. Mm. nañu ko taxawee ci élection yi nii ñu lijjanti ko léegi. jërëjëf man moo tax man j'appelle à un large rassemblement surtout à mm-hmm. man ci lay dox. moo tax pour l'instant bu ñu demee nag ba xam ne. Mm-hmm. mënuñu ci dara te nag calendrier bi tënk nañu. Mm-hmm. bu boobaa ñun. dina dinañu taxaw ne fii la ñuy sëgg bëre. Hmm. ndax fekk def nañ lépp lu ñu mën. lu ngeen am jël. ñun M7 muy hmm. mouvement pour un Sénégal d'éthique et de travail nekk guñu si signé wuñu si benn coalition. d'accord signé wuñu si si si euh, Yewwi euh, ñu ngi waxtaan nag si coalition bu large fii Thiès. Hmm. pour ñu fexe ba nga bokk Yewwi wala nga bokk feneen wala nga bokk feneen ñu def benn dànk parce que moo ñu jig Thiès. ñu jéem a dem. Euh, deflante ko gaañ. leer na honorable Hélène Tine ñu ngi lay gërëm bu baax euh, yaay coordonnatrice M7 euh, nekkoon itam député ci assemblée nationale mun ngeen ko teewluwaat ci réew mi point com ak réew mi officiel jërëjëf Hélène